man la astu nag di jaayee fii Sacré a ah, wax dëgg yàlla dama doon teel a xëy nag di ñëw Sacré Cœur di ñëw waaye wax dëgg yàlla bu ñu nee daal couvre-feu bi am na gàllankoor nañ am na gàllankoor am na gàllankoor bu baax parce que njaboot nga yore njaboot sa kër war a teel a yeewu 4 heures du matin nga dem marché dem jaay ñu ne loolu amatul léegi fu mu ne nii 11 heures ngeen dem tëdd couvre-feu bi 5 heures lay lay commencé lay commencé jeex nga war a teel a dem xëy balaa nga yëgg mu naaj waaw boo jaayoo ba 4 heures itam ñu tëj ñu ne ñeen ñëpp lalli leen loolu wax dëgg yàlla gàllankoor nañu boobu trop trop trop waaw. léegi dindi nañ ko dindi nañ ko waaye dañoo gis ne daal feebar bi ba tey day gën a yokku rek day gën a yokku waaw arrangé nañ ci benn côté waaye man feebar bi wax dëgg yàlla man jaaxal na ma trop jaaxal na ma ndaxte jégg na dayoo. lu ma njortu woon ne ñëw na Sénégal wax dëgg yàlla feebar bi dafa gën a bari daal daa gën a bari daa gën a bari ndax saay bu ñu yeewoo rek lim bu ñu ko compter rek fii ci Sénégal day gën a bari lool waaw. couvre-feu bi parce que man damaa gis ne itam bu ñu tëjee bu ñu defee couvre-feu bi daal wax dëgg yàlla gisuma changement ndax couvre-feu bi chaque jour feebar bi dafa gën a bari daa gën a bari chaque jour lim bi gën a yokku waaw bu ñu ko dindee itam. wax dëgg yàlla yëf yi daal lu ma ci gis daal solution nañ jël suñu matukaay njaboot bi nañ jël matukaayam waaw ni ko président santaane nañ raxas loxo yi bu mu set kër yi nañ set ah wax dëgg yàlla nañ takk masque yi nag nit ku nekk daal yaay nekk docteur sa bopp man daal noon laa ko gisee instant bi nu mu toll ndax feebar bu demee ci réew ba nga xam ne jéggi na dayoo feebar bu ëpp na ay loxo wax dëgg yàlla bari na lool nit ku nekk daal yaay jël sa matukaayu bopp lu ko docteur yi santaane daal ñu defe ko noonu noonu daal laa ci gis daal. mon nom c'est Ousmane Ndiaye euh, pour man couvre-feu bi ñuy dindi nii c'est c'est normal parce que comme euh, soo dégloo partout dans le monde au-delà même de la pandémie l'économie dafa commencé woon nekkaat plus que la pandémie parce que nit ñi ñu ngi doon souffrir ci sur le plan économique te je crois que ni nit ki bala muy tal santé. d'abord day nekk koo xam ne kii sur le plan maanaam lu jëm ci lekk ak dundam mu mën koo téye ba pare quoi bon donc fallait que buñ ko dindiwul woon aussi au moins ñu tourner alternative pour nit ñi mën a dem am ci luñ lu ñuy jàpp quoi bon dañu suivre nag mouvance mondiale bi ni niñ ko dindee baax na mais aussi dafa war a am suivi parce que maladie bi mi ngi fi ba léegi virus bi mi ngi fi ba léegi ce qui veut dire quoi mooy il fallait que léegi bu ñu ko dindee mu am rigueur extrême ci port de masque distanciation dans les bâtiments yenn milliers yi nga xam ne public yi dañ fay daje mais aussi communication bi di gën di continuer di gën di continuer ñu gën a accentuer la communication quoi par exemple actuellement nous sommes en période de vacances mais ce serait l'occasion de supprimer leen nawetaan et de pousser les gens maintenant les jeunes dans les quartiers yi nekk ci ASC e yi jox leen les moyens qu'il faut ah comme temps bi ñu daan def fii opération rebasement Sahel vert ñu ñu dugg investir wu wane ni c'est des Sénégalais dugg ci kër yi dugg ci fi milliers yi nit ñi ne pour imprégner tout le monde d'abord ñu profiter de l'occasion opération set setal yi daan am ñu renaître faire renaitre ko gën a gën a bale dëkk bi mu gën a set nit ñi gën a set Sénégalais yi jaare fi set parce que li am Rwanda war na mën a am fii mais man loolu mooy sama principale préoccupation quoi te loolu nit ñi war nañ ci gën a incité non non xam nga man je dis que dans la vie il toujours des ambivalences ay désir la rek dangay bëgg lii bañ lii wala nga def lii tey suba le contraire ñëw tey président bi su ko deful woon lan la ñuy am da ngay toog fii nit ñi di génn di toj ay kaar di toj ay kii parce que dañu xiif donc de deux choses line soit tu choisis la meilleure solution ou la moindre solution bi nga xam ne bii nit ñi mën nañ ko adopté ba pare boole kook leneen li mooy dem liggéeyi mais jéem a comme li ma la wax rek insister ci port de masque bi parce que dañ ne maladie bi ni muy ñëwee masque bi daf ci am frein de à soixante soixante dix pour cent donc man loolu laa gis quoi loolu laa gis. waaw couvre bi waaw gàllankoor na sama liggéey trop sax ndax man yàlla dafa dogal ma bokk si ñi nga xam ne ñaari weer yu njëkk yi couvre-feu bi mu liggéeyuma. parce que la le trois laa fi jóge woon yàlla def ma demoon village sama dëkk far couvre-feu bi tëj ma fa mënu ma ñibbisi liggéeyu ma depuis bi ñu ubbi couvre-feu bi laay doog a ñëw kon xam nga ne kon yàgg na trop yàqal na mu lu bëree bëree bari te bu ñëwee tamit liggéey bi suñu demee daanaka taxu koo ki demee noonu dañuy faraatu rek perte nañ lu bëri suñu am nañu ay arriéré suñu këri location suñu waxee suñu xel rek xam ne dindi couvre-feu bi moom mën na mën rax fee gën a yokk moom wax dëgg yàlla ñun dañuy béy dundee ñun ñëpp dañuy xëy dem wuti bu ñu ñibbee ci la ñuy dundee ci la ñuy yónnee suñuy kër yi te couvre-feu bi li ñu yàqoon wax dëgg yàlla béy na te man daal pour man daal nii daal moo gën daal ci gàttal ah dindi couvre-feu bi daal moo gën waaw li may digal Sénégal yi moom mooy ñu def li état bi digle rek ñun ñëpp ñu kon dëkk jéem a dëkk feebar bi xam nga man li ma dugg fii tax ma génne sama masque sama masque ngi nii fu may jëm bu client yi duggee sax dama koy dama koy dama koy jël takku ko du damay takk sama masque su may génn fii sax bu ñu atelier damay takk sama masque waaw parce que comme que dañuy dund ak feebar bi moom ñu jéem xool nu ñu mën def ba feebar bi du laal rek ñu wax tamit état bi pour mu ñëw jàppale tailleur yi tailleur yi sonn nañ trop